naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko ku yëg da ngay premier août da di ab date di dat boo xam ne kenn du ko jaawale wax naa leen ko dimanche lay tombel premier août deux mille vingt et un Pape Abdou Fall borom Paf production moo indi Siteu Papa Sow gis ngeen Papa Sow ci Equivox TV ànd ak ñoom Modou ak ñoom Garga 2 ñoom Franc ah ñoom Gora Sock ak ay kot sam ñoom Balla Diouf ak ñoom Lato ak tey nag ñu ñëw olof a ko wax ku fóotal mbët roccil bar tey nag ñu ngi fi nga xam ne moo di Lamsaar terrain baa ngi ni yaa ngi seen Siteu gis nga Quench gis nga Takké ah gis nga Tidiane fay muy diriger ñaa ngi caatu foora waa Lamsaar yëpp génn Abu Ñaase ñoom ñëpp a ngi noonu génn qualifié numéro 2 Siteu nga ne la ànd ak qualifié numéro 2 sol capuchon ba moom mu a bëre guy gi la mujj a bëreel bu géejawaay ñàkk combat ba kera Léopold Senghor lañ bëree woon lamb ju doyoon waar neex Papa Sow itam Léopold Senghor googu la ñàkkee woon diggante mag Ama Balde mooy le premier août bala ñu caa bokkaat nag dañuy laal maanaam dañuy tampaloo moo xam dañuy dóorante ba jël am bu ko defee nag bu le premier bu ñu demee ba vingt heures vingt et ñu xool ndam li fan lay ñibbi. ñu lay ziar Babacar. Soura mbaa am nga jàmm. sant yàlla di julli. naka Lamsaar. Lamsaar mu ngi nii di neex. mu mel nii da nga jëm ci bés bu rëy bés boo xam ne nii. le premier août bés la ci bési làmb yi ah ren. waaw dëggantaan bés la ci bési rek comme yeneen bési fi jaar rek tamit daal di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci jàmm rek lépp lu ñu ciy séntu yàlla defal ñu ci lu kawe suñu njort ñun waaye école de lutte Lansar yëpp. est-ce que am ngeen njort ci seen mbër mi ngeen gis nii ne am na doole ak capacité bu daan Papa Sow premier août. waa loolu moom biti la fanaan bu ñu waxantee dëgg rek defe naa ni gis ngeen ko si ta xale la te bu dul dara bëre baa ngi ci moom jom jaa moom doole jaa ngi moom kon dañ koy ñaanal rek yàlla may ko waaw signature bi wala boog face à face bi mu ñu def Iba Mar Diop papa da ko xool ne ko dama la gis nga fecc ma xam ne amoo doole. waaw loolu moom bataille psychologique la rek xam nga góor moom bala nga ko yab da nga koo ñam mais le premier août incha allah soreetul ki am doole ki amul doole yàllaa ko xam mais li ñuy ñaan daal yàlla mooy ñu ndam li ñu la mën a wax daal mooy bés bi fonk nañ ko. te le premier août di nga xam ne bés bi fonk nañ ko. waaw fonk nañ bés bi lool. kii mooy Cheikh Tidiane Niang di écri président écri Lamsar euh, monsieur le président maa ngi lay ziar. delloo ziar gannaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari wayjur ñu leen di gërëm baax di leen sant ci dalal bi ñu leen dalal fi nga xam ne fi la école de lutte Lansar di entraîner ngeen ñëwoon fii pour jël si suñu plein site. Euh, mu mel ni yow yaa jiite écrit bi boo xoolee ñu regroupé wu ñu di entraîner jëm ci combat bés bu mag bés boo xam ne ku ne gis na parcelle ni ñu nekk benn temps yii mu mel ni loolu nekk benn boobu mu ngi fay wane ay résultats yu leer a leera leer bon jàngat du ci mën a am bu bëri daf ñu yokk motivation rek parce que ñoom mobilisation bu ñu mun munti def ñun ci la ñu fekk parce que ñun tamit nekkatuñ école de bu ndaw deuxièmement yàgg nañ bëre aussi ay grand rendez troisièmement poulain bi ñuy gemb ci première août bi yàgg na bëre aussi tamit ay combat yu mag donc loolu du nekk loo xamante ni aussi lu ñuy jaaxal la xanaa li wolof di wax rek xëy na ku la jëkk ci néeg bu lëndëm moo lay won fooy tooge te yaakaar naa ne ñun ñoo ko jëkk ci néeg bu lëndëm bi comme ñoo ko jëkk ci yenn raakaar naa ne dañuy góorgóorlu rek yokk li ñu doon def pour bu bis ba jotee yàlla may ñun tam incha allah. Papa Sow yéen a ko jëkk ci rendez yu mag. Papa Sow waaw bu ne yéen rendez yu mag mobiliser mbooloo yu mag ñun ñoo ko ci njëkk Papa Sow moo leen jiitu ci làmb seex. moom moo ñu jiitu ci làmb mais boo ñu jiitoo ci làmb xoolal ñun ñaata combat Siteu depuis mu pré commencé première com première combat amul benn combat bu mu bëree te nekkul grand rendez amul benn combat nekkul grand rendez-vous way mais mais mais mais ñu xoolee papa xool Siteu yow ci côté doole yow amoo lenn loo ci am loo ci xalaat ak yooyu quoi. non non non non munuñ ci tiit ci loolu parce que xam nga xam nga nit moom kenn ku ci nekk aussi ak la nga am rek ngay nga nga gis mais jàpp naa ne ñun li ki ñu yore moom moo ëpp moom moo ëpp doole dégg naa ay kàddu yoo xamante ne yéen peut-être sànni na ko mais yooyu yëpp du kàddu yoo xamante ne yéen aussi yu garaaw la parce que kii wax na ko sànq bataille psychologique la ree na jàpp na ci leneen ak leneen ak leneen ñun ki ñu yor préparé ko avant Covid ba combat bi desoon 15 jours waat ñu dellu si waat ñu préparé ko lu toll ne liñ ko préparé mardi ak mercredi ak jeudi bu nekk ñu gis ñi muy contact ak fii yéen munuñ jàpp ne kii war na ko mun sax yëngu. tàpp doole Papa Sow. non dama ne papa am na doole Siteu am na doole. bu doole mais xale moom bu toll yow non papa bu doole na jël moo bu doole nee na tànk yi dara nekku ci na jël ba bés ba. la wax de. waaw léegi na jël ba bés ba. ndax ku ne witti na doole witti na ñun witti nañ nee na moo ëpp doole na jël ba bés ba rek mais ñi ngi daal la jour ji yàlla ànd ak ñun Papa Sow bu ko bëggee fuk Siteu bëgg na ko téeméer ndax moo gën a doon xale. mais tey boo gisee ñoom ni ñuy entraîner parce que dem ku fa dem gis ñoom Franc ñoom Garga 2 ñoom Gora Sock xale yooyu regroupé sans compter le roi des arènes Modou ñëw loolu est ce que tamit du nekk loo xam ne mën na la déstabiliser yéen. nooy def Tidiane Faye mi ñu tuddee professeur ci dàq bëre ci làmb ji nooy def Covens nooy def Covens nooy def ne ko réel nooy def Coly Faye nooy def Balla Gaye Senior nooy def ne ko réel ndaanaa ni fii la ñu ne waaw ay na fi ne yu ëmb Euh, Siteu di ànd ak moom di pourvu nooy def ñoom maam Alamine nga naan ma ñee ko dar ñi dar kii nag ñi ko dar duñu ay cuune te xam nañu làmb. te roi des arènes fa ne di Modou ma la wax waaw sansam la Modou Lo ndaanaan la c'est un grand champion mais dama ne min nañu bés te xam nañ ko. kon da ngaa yaakaar ndaanaan fii la ëppee. non du ma wax sax fii la ëppee mais ay ndaanaan a ngi fi bul fàttali ne écrit bi benn at la def ñu dar xale yi ñu tegale ay ñetti saison di jël pee ñun miin nañ làmb ja xam nañ ci tuuti pour min terrain bi ba génne suñ mbër mu dem doon champion ak maîtriser ay bés yu mag génn ci loolu xam nañ ko Modou Lo ndaanaan la nangul nañ ko ndaanaanam ay xarit lañ am na droit gunge ko mais Siteu ay ndaanaan nanga koy dar même ñoom rëg-rëg ak ñoom ñëpp Siteu ñi muy kontagal yëpp ay champion lañ yu ñu xam ne ci ginnaaw di ko xelal loolu moom duñ moromam duñ moroom loolu sax nag ay ndaanaan dar nañ ko mais Siteu it ay ndaanaan a ko dar xeex beeg bëri bu lu la ci dàqal non man lu ma mbaax na xam luñ bëgg ndam Siteu daal ndam lañ ko sas di ñaan yàlla ànd ak ñun parce que am ñoom dañ ne Siteu papa moo ko dàq bëri ah. non lu lu lu bu ko dàqee bëri na jël mais xam naa ne Siteu mën naa bëri te ndaanaan la miin na bés yu mag donte xale la comme ni ko président waxee léegi. Euh, bëgg nañ duy stade ba mu fees ndax bi yoon arène bi sax dafa jege xam kuy dox di dem Demba Diop ak amitié bi yoon bii moom xala du dox njaab lay doon xale yi dañuy njaab rek yegg dañuy njaab rek yegg. cukki cukki ba eh, dañuy njaab yegg. waaw ndax fii dañ daan 3 heures mais fii dañuy njaab rek balaa seen ñu ñu ñu wër station bi ne arène boobu ñu duy ko ba mu fees del pousser seen champion la vers la victoire di am yaakaar nag ne yàlla dina ànd ak ñun waaw waaw waaw ñi nga am yaakaar noonu ndax moom yalaa ko joxe mais xalaat nañ ne yàlla dina ànd ak ñun mhm. pour le premier août le premier août non du yomb mais xalaat naa ne guddi guddi lamsaar lay doon guddi guddi lamsaar am naa ci am naa ci yaakaar am naa ci yaakaar waaw diggante non amuñu si tiitaange ndax suñu mbor amu si tiitaange mosuñu si am tiitaange yee xanaa di ñaan yàlla ndam yàlla yàlla may ndam si combat bi moom la ñaan yàlla daal mais ginnaaw loolu tamit ñooy nuyu Baye Seydou Mbacke alxuraan suñu wasila suñu sang ñoo koy siyaare bu baax a baax a baax di ko jox waaj waayam si combat am bi tamit nag di ko wax combat bi combat la comme combat ak Mbacke Mbacke yëpp ak suñu mbokk Baye Fall dinañ si combat na Papa moo moom amuñu dara dara lu ñu koy wax loolu bu combat di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ba jour bis ba mu ñëw combat bi ñu daan ko si xel mu si xel mu sell si lépp daal lu lépp lu mu indi rek ko fekk bu soobee yàlla waaw Papa Sow loolu rek laa koy yónni message. Etienne. jaarati ya si loo ne. oui taw feex sant. naka dóor yi. sant sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima. mais Etienne bés bi ngeen jëm rëy na le premier août. waaw loolu dañ ko dañ ko ko jagoo. Euh, ñun ku dëgg Siteu rek xam na ni mooy borom dëkk bi waaw bu jógee borom dëkk bi bu jógee ñëpp jóg. yàlla mbin waaw yàlla mbin bi xam nañ ko bu baax a baax a taalibe Bamba bi ah mais damaa bëgg na boo eggee nga wax gars yi nga jàllale ne la ñu seen piis. ñoo la. doomu aadama yëpp yor téléphone. di ci sa piis nooy def. da nga ciy jam Siteu. piis bu bees. piis bu bees da ngay ñëw jaamu ñu jaaloo. 4G la bi jar. doo jënd ne ñun démb jaaxaluñu. ñun li ne suñu kanam la xool. gis ngeen fa roi des arènes tamit di ko jàppale Modou Lo. déggoo lu ma lay kooku lañ soxla ñun. Modou Lo barki borom daaru nooree nii wër na maam Seera Fall kooku ñu tax a jóg guddi yi. Modou Lo est-ce que. ay ko xel. Modou Lo est-ce que morom la si làmb wala. morom garab si kaw lay fekkante ah. waaw picc nga ca kaw mais xel maa ngi ci suuf saa su ne xala day màgg mu si yoon. kon daal da ngeen xalaat fii bu ngeen fi jógee ci Modou ngeen jëm. déggoo lu ma ñàkk si àdduna tolof tolof du ñàkk si àdduna mbër bu bañ a daanu bu ne da ngay bañ a ngembu. mais Modou ak Siteu duñu ay waay. déggoo ñun amuñu xarit si làmb ji. déedéet bi moo wax loolu de. amuñu xarit si làmb ji. ñun bàyyiwuñ fi kenn. mbër bu si ngemb bu ne. booy tëdd na nga bàyyi xel ni nga mos a lekk avance booy bi. pareeguñu sax. déedéet Papa Sow taxuñu jóg. parcelle 1 ba 26 may borom. barke borom daaru noo moomee parcelle bu mu fa duggee bu ma ne kenn añ kenn añ dama ko moom ci saar ak ci baatin yow nag waa parcelle duñ nangu lool kat eh seen papa yi laaj ñoom xam nañ eh, parcelle ñu fa dëkk ñu ñuy jiiñ ñoom xam nañ bu baax a baax mian eh, mian ñun bañu dara barke yàlla daw ñu si yataa Baye Fall xam la laa bëgg na ngeen wax takk der yi police yi ñoom ñëpp laay waxal képp kuy takk der nelaw ñu dawal ñu yërmande gars yi bàyyi nañ sàcc bàyyi nañ agressé bàyyi nañ lépp ay taalibe Bàmba lañ. maanaam tuub nañ gaal. yee noonu la demee nekkatuñ si yooyu mais chaque jour dañuy waaw dañuy teg foo xam si ni ñun xam nga waaw duñ àgg foofu sax ñun. non policier moom damaa yaakaar ne képp ku ñëw rek moom teg mbir yi ci ligne bi normal bi moom xalaat na de est ce que nañam ak yow jafe-jafe. mbooloo moo mel noonu. waaw mbooloo moo mel noonu. ñun am ñoo xam ne xamuñu am na ñoo xam ne dañuy jóge Kaolack ñuy jóge Louga ñuy jóge Ndar ndax si tam moom dëkk bi bu jógee ñëpp ay jóg moo wax naa la ko ci commencement bi waaw yàlla mel bi sant bañ la loolu yàllaa ko def du ñun yàlla moo ko jagleel loolu noonu kontaan ci yow ñaanal nag sëriñ bi defal ñu xéwal sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg tëwél ak sëriñ Cheikh Jëmb Fall mu dooleel ñu ñaanal ñu defal ñu kun fa yekkoon bi bam bi ñun ndam kase lañ ci bëgg ah sakkuñu ci violation coowuñu xeexuñu xuloowuñu waaw mais ñun kuñ tooñul dooñu tooñ buñ génnee jàmm gën si kaw mbaay bi laa lay wax eh, wër na Serigne Bamba Mbacke ma fi a bi luñ seen muy direeku di ñëw rek na borom daaro si taa ngi noonu taqee ngoongu caatu fooraa ngi noonu kulifay numéro 2 ngi noonu ah. taxe taxe daa mel ni seeram tàng na de. yalmin bi moo aye su aye lu waay jàppoon da koy bàyyi yalmin bi lépp lay lijjanti barke sëñ Bamba. xëy waxatuñ ko bi tegew naa ko de leneen la ñuy wax bi dañuy yeggali mission bi rek li ñu war dañuy yeggali nii rek Papa Sow daanu na bu yàgg. waaye sant yàlla bu baax. ma am nga jàmm naa la ngay dirigé entraînement bi mu yor avance gasson. amul combat moog Tidiane dañoo war a bëre mu leer. Tidiane mais amul combat. non am na combat mais avance moo fi xew. fii quatre avance fi xew na fi. Père Max sànq dama laaj ma ne ko c'est Papa Sow ñu ko dar tudd ñoom Modou Lo ñoom gar ñoom Franc ak yooyu mu ne mbër mi dàq bëri senegal moo dar c'est mooy Tidiane Faye. waaw loolu leer na moom mu nekk sama papa ñun luñ am rek si moom lañ ko jële maanaam dañoo yaroo si tefes gi ba pare yaroo kii màggee fii nii Lamsaar tefes gi lañ yaroo caar gi lañ yaroo màggee Lamsaar fii nii maanaam dara jomaluñ si bari Papa Sow dama ko parcouriser. parcouriser mooy parcouriser laa la dama ko dama ko leçon laa ko def bokk muy leer. Hmm. waaw kon xam nga li li koy daal. baax. foofu rek la ñuy est-ce que doole ji du du ci feeñ ci combat bi. doole maanaam. mu xalaatu ngeen mu ëpp leen doole. ñaata at la am. Ah, xaw ma ko kay. ah loolu lay wax ji. da wax ñaata at la am âge bi da kii ci 27 ans la yem mbaa 26 ans xale la de du mag de. waaw te gi nga yooyu affaire yu use mind lay def rek ay sa tànk ba nga fekkee yooyu ñun xam nañ loolu ñun bataille psychologique la maanaam ñun yàgg nañ ci làmb duñ ci gan quoi bu si da nekkee xale tam ñun ñun ay mag lañ nekkuñ ay xale ok incha allah. kontaan loolu duñ métti loolu duñ métti. lépp jàmm Babacar. yow moom yàgg sa taa bokk ndey ak baay. waaw gis na ko noonu lay demee nag. kon mbokk ndey ko. mbokk ndey ko jur noonu lay demee nag. pare ngeen. pare nañ bu baax a baax a baax a baax. ñoo si wàccaa bi te pare nañu instant bés bi la ñuy xaar le premier rek le deux na ñu soog a wax ak yéen waaw. ca jàmm yaa ngi nii surtout jaara malaado yi paa bu gàtt bu ñuul bi ki nga xamante ne maam bu juddu ñëpp dañoo jàpp ne lu nekk lay indaale mu indaale ngemb. Siteu mooy kan Siteu taalibe Bamba mi dina wal laa disina disina boonu dégg ñu naan ngel doole. ngel doole boo ko déggee mooy Siteu du moroom ngaka tukal ken duga perngel ngacor sida du fana fana tarkinda la Papa Sow mooy fana fana bi mais sida tarkinda la Papa Sow nee na moo leen ëpp doole de day pas ba jamono ne xaar me ma jaagal laa koy booleel mu ko ñoo ñëpp ñoo ñëpp dañuy xaar ba jamono neex ñoo ñëpp amuñu ak ñoom wax xam nga kan wax ndeyu mi mooy Papa Sow Papa Sow lañ amal wax te Papa Sow man nee naa ko yow mbaa mu tukkal nga mbaa mu tukkal mënul tukkal jamono kon da ngay pas waaw. maa ko wax doo dégg xanaa doo dem dexu onkin cooli mbadaan bi xamaguma fa dexu onkin cooli mbadaan bi dex boobu gën dafa sangoo ñàmpe fay sangoo ay mbomb lañ fay sangoo te tarki ndaa ñoo fay sangoo góor yàlla yi googu def fu mu ne kuy bàyyi dafa dem de fu mu ne mu ngi ca àllum kaañ ba demee ca àllum kaañ da naan suum kaañ ak mën kaañ ak ki fi dàq kaañ ak ki dem ba kaañ am fa kër ngir bañ ko kaañ mu si la taalibe Bamba mais lii est-ce daan na Papa Sow Papa Sow xoolal man soolo moo ko de xam nga laa soxla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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baax ku yëg